salaamaaleykum mbokk yeek yeeg xarit téléspectateurs yi safoo seetaan seen télévision VA TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal ak jàmm tey nag ñu ngi woon fii Tëngéej te sëñ Mansour seet si ndaanaan boo xamante ne kenn du leen ko représenté fii si fukki penc ak ñaari rawatina fii Tëngéej muy maman Ndeye Dieng maman maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. maa ngi lay fay ñu nuyu mbokk téléspectateurs yi macha allah maa ngi leen di fay. di leen jox seen yéeguwaay ak seen wàccuwaay di ko jox te ngéej gépp mm-hmm. euh, comme ni ma ko waxee pour toujours rek. Mm-hmm. man waa Tëngéej jama sagal. macha allah Tëngéej jama gënal Amérique. Mm-hmm. Tëngéej rek a ma ñor. may nuyu waa Tëngéej gi yëpp góor bu baax a baax. di nuyu sama borom kër. macha allah di nuyu sama njaboot ak sama goro yi ci kër gi. <laughs> Ah. waaw maman tey émission ndaw ak artiste fii ñu jëlee fi dalal tey fii bii VA TV ñu fekk la ba sa kër. Mhm. ñu bëggoon a xam kan mooy nday Dieng ak kan mooy nday Fary Dieng. Ah, man de maa ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed sangu sang yi di sant sama ñaari waajur yi ci Touba. Mhm. man waa Tëngéej xam naa ni defe naa ñi ma fi laajte duñ bëri. Mhm. Mhm. defe naa ñi ma fi laajte duñ bëri. Mhm. ndax nag euh, bu dee ci aar bi ngay laaj. man ba ma amee 15 ans laa commencé di woy ay gumbe Tëngéej. di fay ko fukki junni fukki junni léegi xam naa boo ko làmbee na nag 500000. ci boobu jamono. te ba tey bàyyeegu ma nag ndax waa ngéej ñoo tax bàyyeegu ma man du ma ci son du ma ci tàyyi uh-huh. maa ngi ci tant que waa Tëngéej ngi bëgg li may def rek maa ngi ci uh-huh. su ma nekkoon milliardaire barke Seydina Muhammad waa Tëngéej buñ ma wooyee gumbe ñaar nit damay ñëw ndax ku fàttali la faloon da ngay fulleeku uh-huh. ku fàttali la fal rek da fulleeku te man wax dëgg yàlla ginnaaw yàlla yonente bek samay wajur waa Tëngéej ma fal. Mhm. luñu luñu nek rek dal ma nga ca. Mhm. dara ñoruma du dul Tëngéej. waaw ndey mama Ndeye jek bëggoon nañu xam milieu bi kañ nga ci dugg ak kañ nga tambalé way. ah man bama tambalé way nak yag na de bobu ñi di woy nii woyuñu de. Mm. man bamay way ci radio Sénégal ju jëk ja. -hmm. Abdoulaye Lam nek fa. -hmm. ak ñeneen ak ñeneen. Mhm. ñoo xam ne tey sax xañ na am na ci ñoo xam ne génn nañu àdduna. suma ma musee ñëw rajo Sénégal di woy tablier la ñuy teg pour ma yëg pour mën a jot micro yi pour way bi may way ci bi mhm. may way ci rajo Sénégal. bu bay 15 ans laa. boobu xale nga woon. boobu xale bu ndaw laa. man mhm. la dama judd ci aar. ndax Kër Baye ngeñ Tëngéej moom defe naa mooy daara aar bi fii ci Tëngéej. Kër Baye ngeñ Kër Baye ngeñ sama papa ndar gu ndaw ndar gu ndaw mhm. defena moy moy euh li moy wax ni bepp artiste bu ko dégg rek mhm. da ngay xamne li mo wax deug la fop moy daara ji te ba sax moy daara ji mhm. fofu sama keur papa la man sama mag da dan sabar nek yu ko jeng waa tinggi gep xam ko rawt na waa jokul na man dama wax ne jokul liko ko commencé cox bu bir jokul moy suñu base ñun parce que fa lañ hmm. xam man dënku laa juddoo li ma wax ci way rek. dënku nga juddoo. dënku pay laa juddoo. Hmm. waaye jokkul laa yaroo ma ne lu mu guddi guddi nag ndar gu ndaw laay fanaan mais léegi borom bee dogal may fanaan si sëñ Mansour. sant hmm. yàlla. ba tey nag. Eh, maa ngi nuyu tamit waa jokkul wax dëgg yàlla. di nuyu waa dënku. Mm-hmm. di leen manam maanaam na wax ne ginnaaw talibi rek ba bok fofu yeb ba ci Cité Gamo tu mm-hmm. ma ngi nuyu wa fofu yeb mm-hmm. di nuyu wa ndar ko Ndaw nak fala dekk inshallah fala allah ci dekk màggee sa dëkku cosaan waaw Ndargu Ndaw laa màggee donc la ñu juddoo yaroo jokkul waaye sunu nak mo jëndon ko ndar ko Ndaw ñu ñoo ñu ndar ko Ndaw wax dëgg yalla man luma am presque ndar ko Ndaw la ma fekk mm, ndeysaan yàlla dogal nag teer bi ñëw ma ñëw fii cité sëñ Mansour mais cité sëñ Mansour tamit su ma yëgoon ba ma amee juróomi laa fi dëkk. Mhm. parce que cité sëñ Mansour bëgg nañ ma bëgg boo xam ne. macha allah barke Seydina Mouhamed jéggi na dayoo dafa mel ni man cité sëñ Mansour laa juddoo. bu nu nekkee seen xew sax bu nu ma gisul géer ak géwal ñëpp seen téléphone yi kar kar nday jang foo ne nday jang foo ne waaw lu bëgg nañ mu barke yonent yàlla Muhammad ba mel ni fi laa judd waa cité sëñ Mansour gi mm-hmm. maa leen di sant di leen gërëm rawatina maasu ndey si la awaña sama xarit macha allah maman Ndeye Dieng bëggoon nañoo xam kon mooy Moussa Mbaye si Ndeye Dieng ah baax nga njaag nag li si gaare yaay jóob mbay garmeje lisu gare ay jam mbay ah! ay ma góor mbay mi bañ ci mbooy ma tar si la xari joom ay jal jal nday ngoone singar nday ngoone bay ndeeram mbay mi ñuy te baayu si di mbay baayu mbay jom sama góor baay maam seena bu caat caato caato caato mbay caato caato ku ko yónni yool ko yaay mami jeng kooku ma gën a lekk géwël yi li su kare yaay njob mbay yaa ma gën a lekk géwël yi ah da ngaa alaaji Moussa Mbay tubaarkàlla macha allah sama baay boobu daf ma defoon comme doom ju jur kër gi ma toog nii moo ma ko may te lim ma defal yépp ci àddina mënuma ko wax bëri na defal na ma lu ne defal na ma lu ne ba ma yoon Seydina Mohamed 27 ans laa am direction TP laa nekkoon ci moom mu may fay salaire boo xam ne nit am na diplôme te amu ko tubaarkàlla bu nguuram jeexee nag maa nga ànd ak njawar sama waaja yirim ndeel a jeey ay waay doomu yirimee Hit him, hit him, hit him, hit him. Mazambak, manata yirim dela jey. bay bay yirim agwar jeex na. Lim jey ba jey njoom, siri jey ba jey njoom, texe jey ba jey njoom. Ah, doomu ajaratu doomu ajaratu faj jooju di njawat ture nit rek la ma mayul barke Seydina Muhammad li ñuy jooy ci moom mooy gàtt fan damay wax ne kooku bu ko yàlla doon dundal ba nëga ni ah kon kon du ma na ma dara barke Serigne Touba defal na ma lu ne ndax na kuy fàtte démb ku ne doo gor dégg di ko wax waaw dafa demoon ba tënkee gépp koo wax mu ne njawar ah kooku di ndeyjëng rek la la respecté ndeyjam mooy géwëlam te daw ca dara nag yërum dee di jéy te nag ñibbi yomal xiyam moo ñu tàggale ndax man du ma jàpp di bàyyi bu nëgë ni fekkoon muy dund ba tey maa ngi ci moom. ndax sama baay ba ma àndaloon mu Moussa Mbaye dama ànd moom ba mu bàyyi politique ay ëpp na 10 ans ku ñëw may la dama bàyyi politique. ba yàlla boole maa njawar. Mhm. Aline Mar nag. yaay waaji yaay waaji yaay waaje njere yaay ko dumar waajange man la ñaata ngee kuiser meer alimara ndomur yaay mare jaañ waajange kooku day nekkut sama meer mhm. nekkut sama leader kooku sama mag la ñoo bokk ndey ak baay mu yàgg ma bëgg nag lool ndombur yaay Mare Diagne mu yàgg ma bëgg lool barke Serigne fàllu Mbacke yemalewu ko kook dara parce que yemalewu ma ak lenn ndax nag bëgg yéeg rek moo koy fay mu bëgg ma ba àdduna yëpp xam ne daf maa bëgg ma bëgg ko ba àdduna yëpp xam ne dama koo bëgg yemalewu ma kook kenn dendalewu ma kook dara ndomb yaayu Marie Diagne mère sociale baa ngoog yal na fi yàgg te bañ koy weer di ko weer ci barke Seydina Mohamed sama xarit la. maman ñu gis ne Ndeye Diagne di def ay soirée wala muy ñëw ci concert yi nga xamante ne mooy am tëngee ci loolu lan moo lan mooy problème bi ba duñ ko si gis. man nag euh, loolu dinaa ci wax parce que góor gi njaay sama rak. Mm-hmm. Euh, temps yële passé muy tëgg. 1er euh, janvier. naka la tuddee sax. jardin public. jardin. Mm-hmm. wax deug yalla ñono ba ci man sama rak la ñooñu ma leen yar. Mm-hmm. se xagna na se xañ magew ma lu beuri sax mais sama rak la ndax mok sama ñaareel bi dofa ñum buy mbay jang no mm-hmm. maase moy sama rak bi di deug sampal. kok mo dàqoo yi téeméeri junni yoon. borom moy moy jallalé mais sama rak joju moma ma way témir yoon. xaj na nag moom kiiwul tëngeej ñu waa tëngeej noonu xamuñu ko noonu mais moom ak góor gi njaay ñoo doon nekk guddi bëccëg suba ngoon tàkkusaan fajar mm-hmm. ñooy fanaan ñoo yendu mm-hmm. mu nekk nag sama rakk njaay soo gi wax dëgg yàlla bi muy def euh, programme am boobu woo na ma mais borom bi moo dogal ma xawoon tawat jéem naa ñëw ba tay sax mm-hmm. mais munuma boo waxee mu ne man auto boog dama don yërndu fan la sa oto gaare kon koku mbir ma ñoron nako pour ma ñew te man it ñoroon na ma pour ma dem mais borom be ko dogul ndax dama xawon tawat lo rek moma ma pour ma dem nak man sama jëmi bop nag dama don teug chaque année sama anniversaire fi ci Camp Sapeur macha allah day fess yàlla kenn doom fo taxaw ndax sama waji ndombu yaay mare jaañ keroog melni bu ngor ba ngóor njaay mbaam duñ dem fess mais nag euh, xam nga jaam moom tolof tolof day faral di am xam nga yugo boobu malaan la moom laa doon àndal di nekk jokkul mooy sama taawu papa yugo foo taxaw jokk ne yugo jañ ñëpp ko xam dama am benn at bi ma defee sama anniversaire bi mhm. ba ca déwén sa dafa gaañu mun ma ko defaat deewon sa wat sama benen mag bu top ci mom gañ kan. mm-hmm. daw sama rak bi kan. ma xamne ne top ci man encore gañ li moma am empêché pour ma def sama anniversaire def sama programme def sama activité même album bob ma génne won yugo bob motax album bi amul promo mm-hmm. ndax bama ma ko don génne nak jekkoon na jekk eh, ci canton yalla bu tax mo am promo mais mm-hmm. nak sama mak dafa ñëw feebar li ma yoroon yépp ma def ko ci te teelawul sunu boroom jël ko loolu daal moo ma empêché ndax mënoon ak say mag dee say rakk dee ngay nekk ci dëkk bi di kii dafay dafay du xaw a jekk daal mm-hmm. rawatina sama rak boobu topp ci man gaañu daaw rek nii ci koor gi daf ma daf ma choqué trop daal te fekkoon ne waaj waajoon naa waajoon naa année def anniversaire bi daaw mm-hmm. waajoon naa ba defar lépp mais mu gi sottiwul. te sama rek boobu moom mujjee gaañu. Mm-hmm. mais nag fa ma nekkoon ba tey fa ma nekkoon ba tey. Mm-hmm. maa nga fa. Mm-hmm. fa ma newoon ci bëgg aar bi. ak bëgg way ba tey maa nga fa. bu soobee yàlla ci léegi nii rek maa ngi ci ñëw bu soobee yàlla. maman bi daf da koo doon. wala dangaa am idol wala dafa nekk loo xamante ne yow yaa ko bëggal sa bopp bu fekkee danga koo doon. bu hmm. gën nañoo xam ci koo ko doonee bu fekkee ne da ngaa am idole kan mooy sa idole. man sama maam biñ ma tuddee mu jur sama papa. Hmm. daan woy di woy bañ koy may ay gétti nag di ko may ay gétti gëléem. moo jur moom lañ ma tuddee. woy bi nii dañ ko doonu de hmm. ñun nag ay bajjiwal làmbaay lañu. ñun ñun euh, sosowuñu fii bien que ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo. Mm-hmm. mais suñu sama parent sama papa mu nga nekkoon ba jiwul te Lambaye lu nekk sama maam mais moom bi ma tuddee mu jur sama papa def na ko foofu ci aar booba nag aar melul nii booba aar du tey comme nii. Mm-hmm. mais way bii xam nga boo ma dégloo rek nag di nga war a xam ne li forma ko. doon la boo ma dégloo rek. dégg ma. di nga xam ni ah for forma ko de. ko doon forma ko. donn naa ko ba tey nag sa yaay mën na mën a way sa baay mën a way te doo mën a way. te doo mën a way. way don la ci deret lay daw. Mhm. man way moo daw sama deret. suñu famille nag ñëpp way macha allah. même sama rakk bu góor boobu ma lay wax ay doomam bu nu wooyee kii toog bu wooyee nga daw kii lu ndaw li sa ginnaaw. macha allah kii bu wooyee nga yuuxu barke Serigne Fallou Mbacke. moom laa lay wax ne la papaam moom ma daa xawee man. Mhm. ñun wooy dañ koo doon. te noo doon tëgg sa ba déggoo may la fii ku fii géwal rek boo ma déggee di nga xam ne li ma wax dëgg la di nga xam ne suñu kër moo nekkoon daara ji. ndar gu ndaw. Mhm. ku fii def aar rek ñi siiw ak ñi siiwul jaar nañ suñu ña fa jaar bëri na xam nga nag boo toogee ñoo ñu dem tey. Mhm. xaj na yegg foo xam ne ñun yegguñu fa ñu naan suñ kër lañ nekkoon ku comprendre da nga naan ñii dañu iñaan wala dañu wonewu mhm. mais artistes yu bari tey fii ci Ndakaaru ñuy nit ñi dégg ñuy yéeg ak a wàcc billaay wallaay ñëpp suñ kër lañ ñëwoon kër façon daanan bu ne na fa. bi doon la ci yow. waaw dama ko doon nag forma ko de eh, doon naa ko. Mhm. te Eh, day am sama benn xarit eh, léegi mi ngi Italie day ñëw ne man yow ak Mbaye Dieng li leen tere siiw àddina xam leen laa xamul mu ne mais yaa mën a woy yaa mën woy moo leen jàpp moo tax demu leen fenn loolu <laughs> eh, mais nag xañ na borom bi lu gën rek lay def moom lay def mm-hmm. xañ na tey jii am na ñoo xam ni ñu nga ca Tuubaa tey ku leen waxoon ne boo leen siiwee da ngeen di dee duñ jema siw sax mm-hmm. té man wax deug yalla waté Tëngéej dal sagal nañ ma dal man dal wax deug yalla ku yéeg ak ku wacc ñeewu ma la wax deug yalla li ci nit ñi di wut dal moy taranga suñu borom defal na mako ci maa mm-hmm, ah, ngi sant yalla bu wér di sant waté Tëngéej day day yalla moy sa secret ak wa Jokko ba bo ne dal rek ñep juk yi degul li ma la wax xam même waa koñ bi mu dëkk soo wax ñu ni kenn day jéeg mu nga jokkul jokkul rek lu bëgg te parce waa jokkul dañ ma bëgg dañ ma bëgg ma bëgg leen jokkul ndënku moom boor bi yëpp laay wax rek nee naa la ginnaaw taliba ba ba ba ba géej rek ku ma bañ yeewoo fa te niñ ma bëggee ni ma leen bëggee moo ko raw fuuf barke Serigne Touba ñoom rek laa bëgg. ñu daan du gis sa aawkat bi la daan aaw. te mhm. nekkoon ci yow ñu xëy benn jour rek gis ko góor gi Ndiaye qu'est-ce qui se kooku sama rakk la de kooku maa ko jàngal way mhm. kooku dama ko fekk ca marché sama doom baay la. Mhm. bu dee ci kër papaam suñu ñaari maam yi ñoo bokk ndey ak baay. bu nekkee ci kër yaayam suñu ñaari maam yi ñoo bokk ndey ak baay xam nga mooy yaay seex mu ndaw mi tëgg sabar. Ba barki dem la tuddee sama tahu jigen mm-hmm. ah. jigéen bi doom mu matul deux mois xam nga kon diggante boobu dara fa sama doom bi mooy gurki góor gi sama rakk la c'est que nit ñi comprendre ñu xam nga tamit njàng njàngaan kuy njàngaan boo mokkale bu la neexee nga ber sa mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. nit ko bu bëggee def dara nga empêché ko day mel ni da nga soxor ku sañoon tamit boo jàngalee nit ki ba mu mën su gisee leneen lu lu <laughs> lu mu dem nga bàyyi ko mu dem ci loolu. Mhm. mais ba léegi fi ma toog ni ma ko woon rek bu ñu fekk ma fi. macha allah man c'est que bokkuñu lu ñuy def. Mhm. parce que man fu ma dem dañ ma faa woo. Mhm. fu mu ma woowul du ma fa dem. te moom am na ñeneen ñu mën a àndal tëngeej di lijjanti ay mbiram. waa nga bàyyi ko mu lijjanti ay mbiram. Uh-huh. mais teewul nag bu ma ko soxlaa mu ñëw. ki taxaw fii léegi sama doom la nee naa la man lu ndaw li toogoon fii léegi mën nañoo ànd toj àddina ak moom. macha rek lay def. Mm-hmm. man samay doomi rakk yëpp dañuy way te doy nañ yow say morom lañ taxaw fi sa robe bi léegi sama doom la mm-hmm. mën na way mm-hmm. mais kooku sama rakk la maa ko jàngal way nag. fu mu toog na wax ko it nag ne lu ma am ci way tey walla lu ma am wala lu ma man sama majjee tax te loolu dara du ko dindi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay sama rakk la góor gi njaay sama rakk la. mën na dem moo aaw ko loolu amul benn problème. maman ñu gis ne concert yi di am statut Tëngéej lu mel ni le premier janvier. Mhm. góor gi njaay di ko taxawal ñu ci gis artistes yëpp te yow duñ ci gis lan mooy problème bi. am na wax ma la wax léegi. Mhm. bu ne nga ne mooy def concert yi. góor gi njaay le premier janvier ñu di ci gis artistes yëpp. wax dëgg yàlla nag. Ừ. đau mà chỗ em đét, ừ. đau mà chỗ không có mắm gồm bụng ừ. đừng mình nhớ về à, nung tu đấy phải nói con đấy phải là đặc along mẹ ba phân đấy sao vậy? phân Jardin non non mairie jardin daaw jéeg bi mu ñëwee jardin gis ngeen ma foofu la noonu photo yaa ngi fii ñëw nga moo tax c'est parce que daf ma woo daf ma woo invité ma sama rakk la ñooñu mag laa la ñooñu presque magoo ma leen dara. sama rakk la bi ma wooyee ñëw naa xam nga dëkk bi aar bi dafa doy waar. da ngay dégg jàppal bàyyi te fekk man. Mm-hmm. dund ma yooyu. Mm-hmm. man dund ma loolu parce masha allah dama dama dama teel a jóg ci aar dama cee teel a li jënd samay bien ba tax na yooyu nit ñi di dund nonu. man dunduma mako wax deug yalla. te lepp luma ma nit yalla na la ci jitu. Adina man suma julle damay ñaan adina waxuma samay mbokk rek sax ak samay dom. Adina la wax yalla na ñepp am yalla na ñepp tedd yalla bu kenn jax yalla bu kenn man saa su ma jullee loolu mooy sama wax ñëpp laay damay ñaan sax ba mel ni ko dof ñëpp laay ñaanal. te lu ma yéene nit yal naa ci jiitu te Serigne Touba nag nee na ñaan du jiitu. boo soxree kenn du la ñëwee. wax dëgg yàlla nag ah, du ma toog fi ne wax dëgg yàlla di wax lu ma neex ah, ah, comme ni ko waxee nii góor gi Njaay lay woote duñ la fa gis daaw woo moo tax. ren nag bi mu ma wooyee bëggoon naa ñëw suñu borom moo da xam nga loolu laa la jiite la léegi. maa est-ce que mën nga ñu leeral la moo tax daanu la woon woo. ah non du dara xañ naa du dara. Hmm. <laughs> baax na. Ah, du dara. Hmm. ja jotewuñ dara nag sama rakkal. Hmm. wax dëgg yàlla jotewuñ dara. rakkam bi topp ci moom. daf maa bëgg akoo njaay ba ma xool man. boo waxee mu ne ma yaay sama idol. su ma toogee tey. di mel ni may mel nii di bëgg lu baax di def lu baax ci yow laa ko gisee yaay sunu mag yaa ñu yar yow yaay sama mag bu jigéen dama mel ni am naa mag ma bokkal ak bàyyi ndax yow kon xam nga ñooñu jotewuñ dara mm-hmm. aar nag moo dafa salte quoi dafa xaw a doy waar aar waaw te man nag sama programme wax dëgg yàlla defe naa sama anniversaire bu dee daa nga ñëw chaque jour damay invité góor gi jaay bu ñu dama ko jox micro mu way ñëpp laa invité mm-hmm. ñëpp laa invité parce que defe naa man am naa yaakaar que ni sama podium man nit mënu fa taxaw def fa lu ma fa dul def man mm-hmm. possible mu la am mm-hmm. kon man ñëpp laa invité ñëpp laa woo ku ma woo tamit dinaa dem mais ku la woowul aussi wax dëgg yàlla wutoo fa dara loolu rek la ma jotooñ dara sama rakk la sama xarit la. ma Ndeye Diagne lan nga mës a dund si àddina loo xamante ne ni lu la marqué la lu la metti la. li ma mës dund sama àddina nag lu ma naqari. Mhm. sama papa daf daan wax sama mag bu góor ni ko eh, sama étage bi fii lay nekk fii lay nekk. boor bi laa koy def sama mag bu góor ne ko waaye kan ma lay def étage yow mu nekk sama doom jigéen ñi moom may def étage yóbbu ma màkk. mu ma yóbbu màkk ni ma ray tax ni mu yóbbu màkk yalla dogal mam 22 ans sama yaay gaañu mam 27 ans sama papa gaañu. ci la lay wax ne ci la ma Musamba yóbbu màkk. lool la Musamba lu man naqar ci adina ba dama joy Dakar ba Tëngéej parce que dama bëggoon sama papa yene gog mu amone yalla mottali ko bee bu ko fekkoon man duma dem dama ko jox mu dem. su fekkoon sama yaay damay dox sama yaay mu dem mais suñu borom dogal na bi ma njawar di yóbbu màkk bi ma Moussa Mbaye di yóbbu màkk bi ma sama jëkkër di yóbbu màkk yooyu yëpp fekk na sama yaay ak sama papa nelaw mais bu leen fekkoon xam nga du ma dem loolu moom jour boobu wax dëgg yàlla métti na ma torop torop torop dama jooy Dakar ba Tëngéej sam sam papa daf ma bëggoon lool ak sama yaay sam papa daf ma doon wax ne doxal ñu dem mané ko amune ma di nga xamné ne xala ay won la ginnaw bala ngay xam lan nga ma defal mo won la ginnaw té wax deug yalla sama ay ak sam papa biñ ma waxé lol biñ ma woné ginnaw xamna man lan la luñ mo xonta gis nako motax may faral di wax né man xalé bu xam na nga sakku sa ñaan wajur mm-hmm. na nga sakku sa ñaan wajur té gor gorlu ba bo sa yaay sa papa bu la tiitaroo waa bu leen tiitaroo yow fexeel ba sa yaay sa papa tiitaroo la. Mhm. ñaanu waajur man daal doom ju amul ñaanu waajur laa yërëm waaye boo amee ñaanu waajur doon na mu dara waaw bu non boo amee ñaanu waajur doon na mhm. boo ko amee boo ko amee dëgg ah boo toogee di nga xam ne am nga ñaanu waajur de. waaw Ndeye àddina loo xamante neex la te marqué lu ma dund sama àddina lu ma neex. Mhm. dem mak dem makka dem na makka ajal sama bop ajal sama Yai ajal sama papa lolou mom ma neex ci aduna parce que dama dama yéene won pour yóbbu leen màkk mm-hmm. suñ borom def na ñu genn àddina waye yalla dimbali na ma ba yobuma ba ma ajal len lolou mom ma neex sama aduna ma gën sa aduna woyu legi ni woyu legi yi ni ak woyu ci kon lan moy différence non legi gaay yi ñu na dañu fo rek. ku amatul. Hmm. ah man day wax dëgg yàlla. Hmm. gaa yaa ngi jéem nag. Hmm. mais jamono yi aussi ñoo ñoo tolloowul jamono yi ñoo tolloowul bokk ndax àddina day day avancé. àddina day avancé léegi li gaa yi di woy nii mooy daaneel seen classe gi. waaye man nag. dama bëgg way pur et dur dama ko bëgg waaw waaw way dafa bokk ci man de way dafa bokk ci man de kuma ma man jeng ba macha allah de mais dama mëna way ba pour nga mëna way sax man bu ma la deglo bay ne ki way kat la xamal ne nan nga deg mm-hmm. ndax way neena la way dafa daw sama deret way rek la bëgg ma way rek man ngay def waaw maman daanaan bu jugee oto ya, bu jubee gaar otaraay danaan dar waaw mm-hmm. Lagi bu jubee laaj leen ma ku may wayal way ndey jeng koy wayal way fii mbay mi ma bëgg mu bëgg ma lool mbay wayal way dogo mi ci madun mi ci seeseen karangalle mi ci basangi dameeli mbañ waali ngoota yaasin mi ci kongo maa fay gi leeg maa fay ngaay yaat ma gi leeg ngaay xura jangi leeg maa ngaay mbaye baay abdou asis malik baay sall ana baay ndey sel mbay doga baay jaara sa baale baay maam Usmaan laaj leen ma may wayal way ne ndey jeng koy wayal way vie mbay mi ma bëgg mu bëgg ma lool mbay laay wayal way vie mbay mi ma bëgg mu bëgg ma lool wallaay wayal way wi lay den koy wayal way wi dogo mi ci waareek madun mi ci seeseen karangaale mi ci basangi dameli mbañ waali ngoone yaasin yat ma gileeg maa ngaay xureja gileeg maa fay ngaay masata gileeg maa fay ngaay mbay sel mbay dogo lañu woy sa Matar Binta Mbay baayam Balla Dogo Mbay baayam Fa Mbay Dogo lañu woowe yaayam Badara Isa baay Ndumbe Mbaadaan lañu woowe yaayam ana góor Ndumbe Mbaadaan góor Faatu Kine Mbay nijaay njaay géej bu ma wax la ki may wayal way mbay jeng koy aman fee mbay lay wayal way mbay sel mbay lay wayal way mbay jeng maam jaan lay wayal way mbay jeng koy wayal ah, way a dogo mi ci batuwaar mu allah sama borom kër bobu mang koy sante bu baakha a baax ndax dama ko nop te tubaarkàlla macha allah ba mamé 17 ans la ma takkoon 17 ans ba mako amé la ma ñu nek ba ñu nek ba ni am ginnaaw yàlla sunu borom moom la parce que ci instant boobu. Mhm. ñu nekk ay xale di sëy bu ma waxoon ni toogal damay toog. Mhm. te nag wax dëgg yàlla wutiwuma añ wutiwuma reer wutiwuma ndékki su ma nekku ci dëkk bi di taxawaalu footu na gis ma. Mhm. moo tax employé aseg naa la aéroport la nekk sonaluma bàyyi na ma ak li ma am man te lu mu am jox ma ko xam nga bu weer dee bu gaaree fii oto aseg naa day wàcc ba wàcc xorom. saako xorom lay jënd té xaarul doom té fexé na bay doomam nak ñu ngi Europe sha allah mënoon ne mën mëna say doom nga fofu nan la jàppale mm-hmm. waaye bàyyiwuma ak samay doom lu mu am jox ma lu mu am mu bakkoog man mm-hmm. man lu mu am samay rek la koy jox mm-hmm. ak samay mbokk waye buddu pour sama kër gi bu doon sama kër gi damay tedd nelaw ma ngi koy ñaanal gudd fan ak wër ak wër le wax deug yalla nit ku bax la sonaluma kataluma ñoo yarante xam na ma ndax xam nga ñu am 17 ans ki am 20 ans ñu ànd mm-hmm. def naa loolu yàgg na waaw mais bu ma sonaloon tamit kon tey mën naa bañ am dara waaw mm-hmm. ndey ñu gis ne léegi gumbe amatul lan moo tax léegi gumbe amatul pourtant gumbe am na daaw rek mm. waa lébu gi daa naa waa lébu gi mm. wayal waa sita dabbaax gi te bu njëkkoon dañ daan gis kumbe waroon a way Fass mhm. ak ndënku mhm. ak Médine mhm. mais moy corona bu ndaw bi Macky Sall indi bi passé ni rek bu mujjé bi gumbe yoy dafa tas ñi japp seen i yo a jappon nañ seen i sax bo yobu seen lettre rek yëpp mais Macky Sall mo indi corona bi motax mujjul gumbe yi mujjul am motax amul ne fiñ mu toll nii am nañu pare nag yow xale yi xale yi defe naa boo ko tëjee daal di nga gis ay gumbe nga gis ay mm-hmm. xale yi nekk ci aar bi di ñëw boo wax loolu leen wax di leen dolli xel xale yi nekk ci aar bi mm-hmm. ah ñu góor góorlu rek parce que man damay dégg ñu ni woy dañ koy jàng mais man xaw xawma ma ko xam xaw ma nu ñuy jàngee woy xaj na nag bu nekkee sa bopp nga bëgg ko yàlla mën na def ba nga mën ko mais man na wax dëgg yàlla jànguma woy te ñi fi siiw ñu ci bëri dari li ma waxoon léegi rek bu xam nga bu fekkee yow demoo ba pare ngay toog naan diw dafa woy sama woy diw sama woy ñi comprendre dañ naan da nga soxor mais ñu ñu ci bëri sama xam-xam lañ leen xame ñu bëri fii ci artiste ñu xam barke sëñ Fallou Mbacke sama xam lañ leen xamee samay woy la ñu woy te ñi ma xam tëngéej xam ma ba may xale ba léegi dañuy dégg woy tusu ne ma ndey jëng di woy na sa woy mm-hmm. waaye terewul na bu ma tëddoon ba quatre di du matin nga woo ma ma génn la saak woy yu bees saak yu kenn musul woy ñun woy yi dañ ci am don mm-hmm. don la nekk ci ñun xam nga woykat yi bëri na ñuy woy mais créer moo yombul mm-hmm. créer woy boo moom nga dem woy ko yombul man nag heure bu ma doon nelaw sax boo ma feggee ma tegale air yu bees sàq yow mosul dégg fenn bu ma doon nelaw ba yandoor nga yee ma ma tegal la woy yu bees sàq yow mosul dégg fenn barki Serigne Touba. waaw man day jàng sa wax ñu xaar ko te projet naa la. Eh, eh, expliquer na la li ma empêché won pour que mënuma def dara. Mm-hmm. mais fin tol ni ma ngi ci yoon xam na dal après tabaski incha hmm anniversaire bi na dal. tabaski inshallah après tabaski. waaw té eh, euh en même temps. ma ngi no japp noo ma jour moo ko jàppale na ko wax ñep inshallah en même temps ni ma ngi studio di génne benen album. benen album wa ah, parce que way bi ma way léegi ci album bi ma genné la bok defena ken kenn déggu ko sax ni nga xamuñu ko hmm. defena album bobu way awa job bi rek mo ci siw awa job député bi wa té album bi 11 titres ci nek hmm. te ben bo ci dégg da ngay daw té wayuma lu ken mom man lu ma way mako mom 11 titres mo nek ci album bi mais album bi amul promo hmm. parce que daf ma fekk ci ay dama ko génn rek nek ci ay jafé jafé waaw am sama mag feebar ma nekk ci di daw talatuma ko. loolu moo tax album bi amul promo mais album bi onze titres la dinaa la ci may benn boo fekkee mën ngi koy teg nga koy teg. incha allah <laughs> dama tàggatoo téléspectateur yi waaw maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi santaan ñëpp. Mm-hmm. di la sant yow sama doom ji bëgg sa yaay ji. ya ñi nga andal waa ya, VA TV. wa VA TV. wa VA TV gep man ma ngi leen di sante mhm. di len gërem di len ñaanal yalla yalla na seen métier yegg fu ko seen njortu. ci barke sayidina Muhammad lepp lu ngeen ci sentu yalla na ngeen ci gis lu kawé loolu seen njortu. amin amin yalla def len gudd fa na wér baad len wërsak ak xewul gu sawan bawan ak mbolim julli yalla bu kenn jaax yalla bu kenn amin sant naa leen gërëm naa leen bëgg naa leen. merci beaucoup maa kontaan nañu ah, nga ma ñu suub kii bi VA TV. waaw. yee VA te laa leen di wayantoo ku doon lu baax baax sama gaay naa sooy ku doon lu baax baax jërëjëf dinaa la wayan sooy aye VI TV tey di wayantoo ku doon lu baax baax jërëjëf dinaa leen wayantoo aye di wayantooy ku doon lu baax baax jërëjëf dinaa la wayantooy télé yi ma tey lay ci mim réew ku doon baax baax sama gaay naa leen wayanto aye VAY e TV tey laa leen di wayanto ni ku doon baax baax jërëjëf dinaa la wayanto seeni maasi leer na sama gaay dinaa leen wayanto VI TV leen wayanto aye VI dinaa la wayantooy ku doon lu baax mbaax jërëjëf dinaa la wayantooy aye VI tey laa leen di wayanto mujj ci télé man ci télé dinaa leen wayanto baax maa xee sama nga doose ma juddu ba juddu ba sama gaay man ci man ci man ci gaay dinaa leen wayanto ku doon nu baax baax VITV naa leen wayantoo aye VITV tey laa leen di wayantooy ni ku doon nu baax baax jërëjëf yàqu rëy nga doo sey VITV ñoo jël pee man dinaa la way bilay ndaanaan ngeen bu nuy xëccoo wurus yaay man xam ku jël ngalam doo perte ay tiwi yéen laay jiin billaay wallaay ji ñu ñooy ndaanaan ñii ka joowur si yaay man xam naa ku jël ngalam doo perte yaay man ki gaay billaay wallaay ji ñu man ci jaay xam naa bilaay walaay ndaanaan la man xam naa ku galam doo ana sama ndaanaan yee bilaay walaay ñi ñooy ndaanaan man xam naa ku galam doo riyayti iman tiga gaay billaay wallahi indanan. ndaanaan bokk kari tele téléspectateur via TV li lañ leen indiloon tey macha allah muy émission ak artiste ni set si won danan bo xamante ni nii kenn di len ko présenté fii si Tëngéej rawatina Dakar muy ajaratu Ndeye Dieng macha allah gis ngeen limu wax bu baakha baax waxtan nañ lu bëri ma di len jox nak rendez-vous ci benen numéro allez bye bye à bientôt.